le portail du Baol sur le web. tali na jàmm ñoo ànd xëy gi di Rewmi Quotidien L'Observateur Vox Populi Sud Quotidien Le Quotidien Les Échos Source A Enquête Direct News L'As Libération Walfadjri Quotidien Yor Yor 24 heures mboolem yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo ñu xëy di ñu xibaar naan ñu démb Ndakaaru Njaay jël jëpp tàng na jër ñi nga xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi ñoo doon jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy takk der na li nga xam ne moo indi coow ne moo ne sigi coor loole la ko takk der yi mayul nga xam ne ñoo jiite mayu la journal bi nee na Ousmane Sonko ginnaaw karawaan boobee nga xam ne moom la bëggoon a diree sigi coro ba agsi ba muy yegsi ci diiwaanu ko daal di teg loxo moom Ousmane Sonko journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy takk der ñoo ko jàpp ginnaaw bi ñu ko jàppee jël ko ko ci seen oto nga xam ne fa la Ousmane Sonko dëkk waaye ñu ko indee ci cité kër góor gi dañ ko sa tànk bu mu yegg ci ci buntu kër gi Antoine Diome ministre bi nga xam moom lañ dénk kaaraangi réew mi nee na jàpp gi nga xam ne jàpp nañu ko Ousmane Sonko daal di mi koy andi këram loolee amul lenn loo xam ne maanaam lu si dul yoon la lépp yoon la ndax li nga xam ne mooy procédure yi jëm ci wàllum caravane loole la Ousmane Sonko respecté wala ndax lu jëm ci wàllum caravane wàllum dajaloo ay mbooloo loole nag dafa am anam boo xam ne moom lañ ko war a defee maanaam ak yëglu koo xam ne dina ci am journal bi nee na moom Antoine Diome daan nay wax ne état de droit la ñu nekk te sénégalais bu nekk dafa war a respecté li nga xam ne mooy loi yi réew mi yéen kay ñu xibaar naan ñu tout cas li am ba desal ndakaaru njaay jël jóob ji mën nañoo wax ne ma ngi ci sous président ñi nga xam ne ñooy farandoo Ousmane Sonko yeeg takk der yi démb dañu doon jàmmarloo ci cité kër góor gi journal bi nee na bëri oto yoo xam ne dañu ko tal gër naan lacrymogène yi niki démb doon na naaw gauche ne ñoo bokk ak plateforme na si ñoo xam ne démb nañu sol seen dal ngir nag dem cité kër góor gi ngir nemmee ko Ousmane ñi nga xam ne ñooy takk der yi mayuñu leen ko ay gër naan ba seen xol sedd journal bi nee na xabaar yi ñoom tim niki démb ci cité kër góor gi ñoom tim ñam nañu ndax ay grenade lacrymogène la ñu leen sànni di cafaal ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ñaawlu na bu baax a baax anam bi xam ne jamono ji moom la ñuy doxalee ak Ousmane Sonko journal bi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko jamono ji soriantewul ak ku nekk ci résidence surveillée journal bi di Sud ci leader F24 ñoom docteur Abdourahmane Diouf ak Moustapha Guirassy ak Déthié Fall ñoom tim démb la ñu leen a gazé a naan ñu démb ci ndakaaru am na ci bërëb yoo xam ne tàng na jër journal bi nee na Sator di Matar Ba di Serigne Mbay ci am kër dañu ko songo journal bi nee jumaay Sacré Cœur maanaam mosquée Sacré Cœur seen yar ba gars dañu ko tal yéene kaay gi nee na yi BRT yi song nañu ko attaqué nañu ko Guy Marius Sagna ci biir bi nee na Macky Sall dafa bëgg a écarter Ousmane Sonko te loolee ko nango yi nga xam ne moom la ñu génn ba benn Sène ak waa BIP ñoo teg loxo Ousmane Sonko ba ñu koy jàpp am na ku tuddee El Hadji Malick Gueye ji ma ngi cib garda wi ba koy jàpp am na ku tudd Ibrahima Gueye ko gunge woon ji moom ti ma ngi cib garda wi maanaam cig tënk Ousmane Sonko ba koy jàpp ñi nga xam ne ñoom lañ ko jàppandoolo na ñëpp jamono ji ñoo ngi cib garda wi ci brigade bu Kaolack journal bi nee na Ousmane ñaari téléphone am ak ordinateur teg loxo yéen kay gi nee am journal bi ma ngi woote ab dialogue ngir nag ak dal am ci réew mi journal bi nee na procureur bu Kaolack daan nay wax ne Alioune Bodian mi nga xam ne dañu ko faat kookee bal la ñu ko rayee journal bi de Le Quotidien nee na nga xam na ñooy avocat yi Ousmane yi ñooñu sax mayu ñu leen ñu gis seenub client bi nee na Ousmane Sonko ba léegi ma ngi woote ab résistance yéenekaay gi de La Témoin xëy duñu xibaar naan ñu Liberté 6 Sacré-Cœur 3 VDN bi démb ñi nga xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi ñoo génn doon jàmmarloog takk der yi journal bi di Walf Fadjri na ma ko tuddee mooy seen de kawo waa Dakar bi nee na li nga xam ne moom lay gis Dakar mën na koo tuddee seen dëkkaaw maanaam loo xam ne ba muy tuule ci pëccoxoo la ñu ndax ni ki démb kër yoo xam ne ki oto dañu koo daal di tàll ko BRT bi sakaase nañu ko yéen kaay gi nee ay bus yoo xam ne dañu koo tàll yéen kaay gi da lay gisee koo xëy xibaar naan ñu li ñu taal oto bi ñu ko xëy maa ëpp na fukki oto yoo xam ne taal nañu ko station Total bu Liberté si song nañu ko bundu kër Abdou Latif Coulibaly na la ñu nekk Ousmane Sonko démb yëkkate nay kàddu di encouragé ñi nga xam ne ñooy ndaw ñee neen nag yokk cere dolli ñeex Ousmane Sonko nee na mbir mi maanaam nañu ko gën a taral woo na ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen région yi ngir nag ñu ñëw Ndakaaro du samay kàddu damay nettale ma ngi ci journal bii di Les Échos yéene kaay gi de Le Quotidien yor yor ci xën mu njëkk mu ñu fekk fa Ousmane Sonko nee nag jamono ji il faut que ñu am courage il faut ñu takku suñu fita jàmmarloo mi nga xam ne moo bëggoon a dem loxo am na lu toll ci fukk ak juróom ci Kolda ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi di Direct News xëy duñu xibaar naa ñu Ousmane Sonko ab caravane la bëggoon a jëlee sigi coor ba Dakar waaye ñi nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi ñoo ko daal di freiné yéen kaay gi nee li nga xam ne mooy événement mars yi atum 2021 nguur gi nee la fi amoon du fi amaata Ousmane Sonko nag jamono ji moom ak ñi mu ndax am na Ousmane ay farandoma maanaam indi ay leeral ci lan moo tax ñu teg loxo Ousmane Sonko nee na sax arrêté wuñu ko waaye dañu ko encadré yéen a kaay gi de la turbine xëy sampab la ca nee na lan moo tax gendarmerie bëgg a humilier ki nga xam mooy Ousmane Sonko bëgg ko toroxal ndax ci seen belende bi c'est la ñu photo te Ousmane Sonko bi mu wàcc mel lu ñu tërëf dañu koo vidéo journal bi nee na kan ci ginnaaw Anita TV kan ci làqatu cortège Bougane Gueye Dany dañu ko daal Quotidien ci a ak Assane Samba nee na waxtaan dialogue munta ñàkk jamono ji ci daar daara jamono ji il faut que ñu waxtaana Ousmane Sonko ak Macky Sall ñoom ñaar mënuñoo ñàkk yëkkati ay kàddu ngir intérêt Sénégal yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu gouverneur bu Ndakaaru tere na deux yi daal daw yéen kaay gi de L'As nee na Cheikh Bara dañu koo daal taal journal bi de Le Point bàyyi mbir moomee wax ci wàllum dialogue national bi nga xam nangoo dem ci dialogue bi am na yeneen juróom ne waxtaan naan na ak ñoom ñoom tim nangu li tax mu am solo mooy crise bi nga xam ne jamono ji moo am ci Sénégal munta ñàkk ñu daal di a amuk dal ñu Ibrahima Sall candidat la ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ndax parti bi nga xam ne mooy modèle dañu doon amal assemblée générale waaye nag ñoom ànd nañu si jamono ji nee nañu Ibrahima Sall mooy seen candidat